Aujourd'hui, nous avons organisé une journée de dépistage gratuite euh, contre l'hépatite B. Et, et, nous sommes en association, en tout cas, avec euh, la COVID-19 qui a besoin de faire une promotion de la vaccination. Car nous savons que, tout comme l'hépatite, euh, la COVID est en train aussi de faire des ravages et nous avons besoin de conscientiser la population par rapport à la comorbidité entre hépatite B et euh, COVID-19. Euh, donc au niveau du laboratoire, vous pourrez certainement voir, je pense qu'ils qu ont la centaine et on attend d'avoir euh, les résultats exactement. La maladie, euh, quand elle est manifeste, ça veut dire qu'elle est à un stade avancé. Mais au début, euh, elle est asymptomatique et c'est une maladie sournoise. Au début, peut-être euh, dans la phase d'incubation, on peut avoir des signes grippaux. Et après cela, c'est quand la maladie va commencer à s'aggraver que l'on va avoir des signes comme l'ictère des yeux. Et on va avoir des douleurs articulaires, des céphalées, des maux de tête. et d'autres étapes qui vont s'en suivre, ballonnement, donc beaucoup de signes. Euh, actuellement, on est à près de, ou bien plus de deux millions de personnes qui, ont, qui sont en phase chronique. Donc c'est une situation qui est là, qui est alarmante, qui fait que vraiment euh, des journées de dépistage doivent être euh, en tout cas organisées afin d'aider les gens à connaître leur sérologie. Alors, quel est le message aujourd'hui à l'endroit de la population surtout euh, que je lance, c'est que les gens ne doivent pas attendre d'être malades, que ce soit avec euh, la COVID, l'hépatite ou bien les autres pathologies. Euh, chaque individu doit aller se faire dépister par rapport à une maladie euh, quelconque qui pourrait un jour endommager vraiment sa santé. la maladie avec les hépatites, En tout cas, c'est hommes, hommes et femmes. Tout le monde attrape l'hépatite, enfants et, et grands. Si on sait que la transmission elle est verticale, mère-enfant pour la plupart, ça veut dire que tout le monde a la possibilité de l'attraper, n'est-ce pas? Euh, donc euh, juste je voulais euh, lancer un appel à l'endroit des autorités étatiques du ministère de la santé et du programme national de lutte contre les hépatites euh, pour qu'ils euh, quand même essayent de d'aider les populations qui sont affectées par le virus et Aussi, aider à la sensibilisation et au dépistage de masse. Parce qu'il y a des personnes qui meurent alors qu'ils pouvaient échapper à cette mort atroce de l'hépatite B, parce que nous ne connaissons pas leur sérologie. Et euh, nous, j'en profite aussi pour remercier euh, le, le, service des maladies infectieuses de l'hôpital FAN, le chef de service, en l'occurrence le professeur Moussa Seydi, euh, qui nous a beaucoup aidé à prendre dans un projet dénommé SNB une inclusion de près de 1000 patients. Et je remercie aussi le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers lui, euh, le docteur Mohamed Moustapha Diop, qui depuis son arrivée ne cesse d'aider la population à combattre les hépatites. Et au-delà de ces personnes que j'ai citées, je remercie aussi l'association Safara Hépatite Sénégal, en particulier son président d'honneur qui est là, monsieur Ibrahim Gueye, qui n'a ménagé aucun effort pour que toutes les activités que nous fassions ici au Sénégal dans le cadre des hépatites, vraiment que cela réussisse et que les personnes soient imprégnées euh, de vraiment la, de, la maladie et nous, nous, nous, nous aide, il nous aide vraiment beaucoup à faire une bonne orientation des patients. Euh, peut-être que le, la, celle qui est en contact avec les malades de Covid pourra peut-être euh, apporter des éléments de réponse dans la mesure où nous, ce qui nous, en tout cas, concerne ici présentement, c'est la comorbidité avec l'hépatite. Nous savons qu'avec l'hépatite, la personne est vulnérable et toute maladie qui vient s'attacher à, à l'hépatite peut vraiment abattre cette personne. Donc, euh, euh, dans ce cas, peut-être qu'elle pourra donner des éléments de réponse, mais je ne pense pas que ce soit vraiment héréditaire au point de tuer le bébé. Gratuite, non. Euh, au contraire, mon cher, c'est une prise en charge extrêmement coûteuse extrêmement coûteuse. Et nous n'avons pas beaucoup de machines de fibroscan ici au Sénégal. Il n'y a pas suffisamment de gastro qui peuvent prendre en charge les patients qui sont vraiment affectés par la maladie. waaw man nag maa ngi tudd Fatou Ngirane euh, nekk présidente association Saafara Hépatite Sénégal Saafara Hépatite Sénégal nag association la boo xamante ne ñu ngi ko créé en 2011. ki ko créé mooy ki nga xamante ne mooy suñu président d'honneur muy euh, monsieur Ibrahima euh, Gueye dirigé na ko lu tolloog fukki at. laata muy jël lengay di ma ko jox ngir ñu mun a àndandoo dox ci liggéey bi may fàttali ne rek Ibrahima Gueye kenn la ci ñun koo xamante ne xeexam bi mu dal di def lépp mooy askan bi mun a xam lan mooy hépatite ak naka lañ koy moytuwee. ba tey ci xeex bi donte ko bàyyi na ma ak présidente bi mu ngi wéyal liggéeyam sur le plan international euh, moom mooy ki nga xamante ne toute l'Afrique noire moom moo leen di représenter sur le plan mondial. hépatite B bi ci Sénégal taux bi fu mu toll nga xamante ne waaw ci xayma yi ñu def daanaka ñaari million ci ay doomi aadama am nañ ko euh, donc mu nekk loo xam ne du lim bu ndaw ah du du du du maanaam lu ñu war a négliger loo xamante ne dañuy bàyyi ñi ko am ñu daal di dem ak wéy ak feebar bi ba mu leen mën a indil loraange. waaw feebar bi nag. nekkul feebar boo xam ne danga koy am tey rek mu daal denc sa yaram tey tey feebar loo boo xam ne bu nekkee ci sa yaram yow doo ko yëg moom du la wan dara waaye bu demee ba nga xam ne dafa jóg ba commencé nag di dox moom day daal di dem rek di yàq dafay mel ni jinax bu dugg sa biir armoire rek dafay yàq yow boo ñëwee ba yëkkati sa yére rek ngay gis na yére bi yàqu na dootoo ko mënati sol moom tamit noonu lay def bu duggee ci sa biir yaram day dem di yàq di wër di dëgëral res bi bu mu mu dëgër bu ko yàqee nag fonction hépatite yëpp mënatul fonctionner euh, bu ko defee nag bu boobaa nit ki ci lay door a commencer di am yu muy yëg ci biir yaramam. mais ci waaw ci biir signe yi fekk na feebar bi commencé na di installer parce que buy door a dugg ci yaramam daf koy def comme genre grip comme genre siburu. muy muy dem ak ñëw noonu bu ko defee day jàpp ne dafa sibru mais bu demee nag ba toog ba jël ay diir nag ba commencé nag di yokk di jur ci biir day dem uti ji res bi bu boobaa nit ki dina commencé di am tuur ndox yi di jaune comme uul bët yi dafay jaune ah da ngay gis digg loxo yi ak wéy dafay jaune am na ci ñoo xam seen digg tànk yi aussi day jaune dañuy am ay métti bopp métti bopp yu tar dañuy gaaw sonn euh, du ñu mën a dox lu yàgg escalier sax bu ñu ko bëggee yëg da ngay gis ñu commencé di sonn ah dañuy am ay méttitu biir ah diñ ci gis ñoo xamante ne dina dem ba toll foo xamante ne dañuy waccu euh, ñenn ñi dinañ am tànk yi néewi ñenn ñi dinañ dem biir bi néewi dëgër am na ci ñoo xam ne bu ñu tollee ci phase bu sori bi dinañu wàccu li nga xam ne moom mooy deret prise en charge bi nag fii cher na cher na trop parce que charge virale nekk na loo xamante ne il faut nit ki nga xamante ne day dund ak hépatite il faut da koy def tout le temps da koy faral di def soit mu def ko ci neuf wala wala un an bi waaye ak lu mu mën a doon bu ko dee def xaalis bu takku lay génne pour mun ko def te xam nañ ne fii Sénégal nii ñuy dundee sànq ci biir euh, waxtaan bi am na ku ko wax nee na moom bañ ko xamalee feebar bi xam na ko waaye bi mu commencé di def prise en charge bi dem ñëw gis na ne cher na léegi moom dafa arrêté prise en charge bi bàyyeeg boppam yàlla suñu borom te gis nañ ne ñu bëri loolu moo leen di rey ñuy profité ci occasion boobu rek euh, di wax ne euh, hépatite boo ko amee da nga war a euh, defaale maanaam xoolaale yeneen feebar yi nga xam ne su ñëwee dal ci sa kaw mën nañ la indil loraange yu mel na comme Covid Covid bi nit yi war nañ ko xam di ko vacciner. vacciner ko ngir mën a mucc ci euh, li nga xam ne moom la mën a ne def comme loraange gis nañ ko fii ci jamono ji ba mu xewee ci ko année dix neuf vingt yi nit ñi gëmuñu ko woon mais ku ci waxal yàlla xam ne keroog euh, jamono yooyu enterrement yi bare na bare yoo xamante ne ku ci nekk sa biir famille Covid rey na fa ay nit kon nag nit ñi def promotion de la vaccination contre Covid bi te surtout ñi nga xam ne dañu am hépatite balaa muy ñëw associé wu ci loolu di leen indil ay loraange. dernière feebar la boo xam ne dafay wàllaate wàllaateem gaaw na yomb na loolu tamit foog nit ñi xam ko parce que yu bëri ci ñu ngi koy néewal mais ñi ngi am hépatite sans ñu bàyyi ci xel parce que boo duggee ci li nga xamante ne mooy euh, virus bi. moom dafay résister sept jour à l'air libre virus buy résister sept jours à l'air libre kon pour mu dem ci keneen dina yomb waaye mu nekk virus boo xamante ne stérilisation am yombul comme yeneen yi nga xam ne da koy gis ndax moom dañu ñu jàngal ne boo baxalee ndox ba mu dem 100 degré microbe bu mu fa fekk da koy rey boo ñëwee ci virus hépatite B foofu nga koy fekkaat mu di la xool 100 degré reyu ko kon mu nekk lu difficile loo xam ne neexu la euh, rey léegi nag. ñu jël phénomène coiffure yi parce que boo demee ci salon de coiffure yi wax dëgg yàlla ñu ngi jël seen ay précaution waaye ñàkk xam moo tax xamuñu ni ñuy jëlee seen précaution parce que dinañu dabb damm laam yi sànni euh, dinañu dagg éponge yi sànni ko waaye ñu sànni tondeuse yi duñu sànni rasoir yi te wax nañ ne léegi stérilisation bi dafa jafe ba ci jigéen ñi tamit ràbb bi bu jamee foofu wàllaate bi mën na fa nekk mais ñu dalal xelu askan bi aussi pour ñu xam ne hépatite B du càggan ne virus bi dafa nekk sa yaram rek danga koy wàllaate virus bi pour mu mën a wàllaate il faut mu commencer di yokk ci sa biir yaram donc euh, ba fii ñuy wax ci wàllu avancé loolu lañu gis ne bu yokku mu commencé gul di yokk wàllaate du yomb mais dina wàllaate si gémmiñ ndax mën na jaar ci deret lay jaar donc du tuflit bii moo koy wàllaate mais dret bu génn si siiñ mën na ko wàllaate ak yeneeni xeetu wàllaate yoo xam ne yu bare la. ban message bi bara euh, message bi may lancer population bi mooy ñu bañ a toog di xaar ba feebar di door a dem te ñu bàyyi li nga xamante ne moom la ñuy ñàkkal fayda ne gëmuñu Covid bi nañ ko gëm nañu xam ne feebar la boo xam ne mu ngi fi nañ ko vacciner. nañu dem xool seen bopp ci yeneen feebar yi nga xam ne war nañ ko mun a am yëpp mais surtout képp koo xamante ne am nga hépatite B bul ko sàgganee parce que fi nga koy sàgganewee foofu lay indee loraange sànq ñu ngi koy wax ci conférence bi nit ki day commencé prise en charge am ba yàgg mu daal di tayal fa muy tayalee nag foofu la virus bi di yeewoo te bu boobaa bu yeewoo moom temps bi mu lay may sax pour nga xam ne yaa ngeek moom dootul bareeti